mbaɗi misilmol ɗum koye traduire alaten ɗo koola ko alaten to koola anin ka sali musu kafu ke altel jululunkol al baadiŋol al kanuntel al termal walla botona dakar kana jankal kaccandi wo kaccandiro mol man na karandiro la kaatu almamol bi jam mul ye lan wol sillono ko mol karandi bari kuwol muyen naati jang wol mu hakkil bulandoti ka ɗo ala fonko kiila e sikaramol hakkilo bulandi hakkil bulando aka hakkil mal nafa ala natake ñinan alal la ñino kama a folo julule jang kabrin kunum bi jang nun tawol natan kabrin kunum ko bari naktivité ga folo kunum ne sama tumon ɗo ɓe je ni alam yo mol so jata keri ala mbitala kataba nin bota je nde tammira kata gudom nin bota je gana laban siccor ala natake kono mol kaccata qila sallallahu alayhi la sahibolu ala kismante yalla atemu yalla ko sahibolu alay mun tomboŋaye ko ko a fawya fo ka koyde ko wonte ɗum alal ye molniyo juuɓe ay molniyo kiskis a nataji nte kiila ndel niyo seniyata niyol beeti ndel niyol bisiyata niyol beeti ayde tomboŋ ako wo koola a naata mo adama diŋol niyol be kiskis a nataji nden no sahibolu walla fananniyol fi siyata yo sayigol duniya mantol ɓe ako annatol tombogol ketentela mantol kono menowol kaccala o jamen dol to misiro ala nata ke bi ñinan nata ka ko kaccani ko kacca jangol mo futowola karola futowola karola ani futu bawo fana l'islam o yakar ni ñaami bari ñin ko mum keta la ko nemolo kaatu sama e famata ka keñi satete kabrite lawugo seejani mbiyetemo o naata oye jiita kiila sala sallam ko ni mum jiita ku lama mum kobo man satalla ñaala kanala omo jiyoti wala ni joyoyal ma kayrolo mum ko damana duwa o du jiyo mum naata mo dantan mum yaala itel benta ñum dula tan kana jutu kafo mo benta kaata mona num ko ana jutu kafo mo benta islam o kafo ka ketenno mais ni cheytan kafolo a katara siyaren kam sambe ten fen fe ika ala dane wo kafo kono mbi nañi mbaɗo mumu seydou leydi amanke ka fof ko mba présenté mol yo molmeta ka moyi molmeta ka jetterel to molmeta ka jeddinkiral bel to ni l'islam wonɓe dakar kono wol yallon ne anin mbi te amanke mbila a nafulo to mbiya nafula ñawte fettuman dow je tant que alay mol so ni ni sima yalla ni jata kenen ɓe karanaala jam wolwinamol kaccandele inchallah ñin futowola karolla fannala karolla kata kewolni musu ka bugue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 di ziyaare mbokk jullit yi ñu fi fekk di ci jiital imaam eh, ak ñépp ñi nga xam ne ñoo ngi ci ginnaawam ñëwoon nañ daaw fekk ko fi mu ubbil ñu jàkk ji ubbil ñu dëkk bi ubbil ñu xol yi ñu toog fi ak moom def fi waxtaanu diini yàlla tamit ci kàttanam moonu mayaat ñu ñëwaat fekkaat leen fi comme ni ñu fi fekkoon daaw kon ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa lépp luñ fi def si ci wàllu jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul yo ko euh, ala ken to koola ani ka sali kiilama ako ntel meta num ka naajan serun naata num jal ñinan fanan ala naata ken naata bari serun kabren mol naata almamu loña molya jele ani keɓal mol ani jele ɓe ñimisiro kono mol ye loña jele ye dula fannude mol ye ye dula yele mol ye sayi o ka tara o be ntel naata hakkil bulando damman na a ko sayi teɓe dandiro kela ntelle ñin na jang ani a kanana ke moolu bulu bata ken sewti mbe ala dani lenge ko kumum kije kumo yalam ala batolon ala so muta mooli ala so muta mooli ala sikkol be yironi mooli sayi o ka tara ala salo kola ani eh, ala fento kola ani ka sali kilama e ñina fo bisimilla ginnaaw loolu ñoo ngi jéem a fàttali sunu bopp fàttali mbokk jullit yi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci dëkk bi ci gox bi ak ñi nga xam ne ñoo teewandoog nun mooy sëy aziwaaj ak loolu ñuy wax at muy fase ñaar yëpp nag ci diine lu dagan la ndax santaane diine la waaye mbokk yi fase sabab yi koy indi yëpp léeg mu nekk global ci góor ak jigéen léeg mu nekk ci góor kese léeg mu nekk ci jigéen kese sunu waxtaanu tey bi nag dañ ko bëgg a def ñeenti tomb tomb bi ci njëkk mooy ñu wax ci sëy ñaareel bi ñu wax ci sababu fase globalement ñetteel bi ñu wax ci sababu fase ci góor ñeenteel bi ñu wax sababu fase jigéen su ko defee bëgg nañ ñi nga xam ne nooy ànd ak nun ñu teewlu bu baax a baax a baax li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee loolu danañu dimbali suñu paree waxtaan ku nekk nga mën a jël kàddu mën a joxe sa xalaat ndax mbir mi kat waxtaan la boo xam ne waxtaanu diine la akusay bi mbe kacala temo mu ndawol mu ñi futo anin ba baŋo ako ñi futu anin futu baŋo kuu lomu yalon ko abe diinol kono yamarolon l'islamu la yamarolon kila fana sallallahu alaihi wasallam la yamarolon ako bari be simu fono futuban akeke kuti mu yalon nsa fono asike no kewoni musola fanna la ifulol be asi sababu asi sunno itella asi sunno kewo fanan damman na karola bari asi sunno fanan muso fanan na karola ako kola na bi mbe hakkilo bulandi le mun na aniŋ baari misilimoolu be fanaŋ hakkilo bulandi mun na ñiŋ futuwo la karoo aniŋ futu baŋo a ko kuma kuu naani poŋ naani boolu cika la foloo munu mu futuwo ti fulanjaŋo futu baŋo ye a la ko futu a si keno sababoo ti kewo niŋ musoo la karoo la sabanjaŋo futu baŋo ye a loŋ ko a fanna kewo la fanna loŋ kewolon sababoti anin futubaŋo fana naani jaŋ futubaŋo mu ye a loŋ ko a keta musoo la sababoti ubiyeŋ musoo la fannaa la fontel se a loŋ ko diinoo la karoo loŋ walla na moolu be dunowol kono tomb bu njëkk bi te mooy sëy globalement mooy santaane yàlla tabaraka wa taala yàlla moo sant góor ak jigéen ñu sëy kenn du wax na nit dafa ragal yàlla ba du takk jabar dafa ragal yàlla ba du am jëkkër yonent yi ñoom ñoo gën a baax ci doomu aadama yi yàlla bind ñoom ci seen bopp yàlla def leen digal ñu takk ay soxna am njaboot te ñoom ñoo gën a baax ñëpp kon sëy santaane yàlla la al imam abul hamid al ghazali wax na ci téere ba benn bunt boo xam ne daf ko tuddee limaza natazawaj lan moo tax ñuy takk soxna mu tont ci bokk na ci li tax ñuy takk soxna mooy pour doomu aadama des ci kaw suuf su góor takkul soxna jigéen amul jëkkër dañuy dem ba xeetu doomu aadama dootu fi amati tey ci kaw suuf ñun ñëpp bokk nañ ànd am na histoire ci histoire am na rabu àll yoo xam ne amatul ci at ci dëkk bi yoo xam ne li tax amatuñu mooy dañoo néew di jeex di jeex di jeex ba tey histoire rek ngay jàng ñu ne la rabu àll yi amoon nañ doomu aadama nag loolu moo tax Euh, yàlla bëggul doomu aadama egg foofu moom moom àddina bi moom moom mbindee fi mu bëgg doomu aadama chaque jour muy des ci kaw suuf moo tax mu daal leen di sant nañuy dencante nañu takk soxna nañu am borom kër yo ay mu foñi futola karola ako kuulo kuufolon salon ko mansatallala yamarola wo yamara mum keta wo yamara alal ye kewo yamar ay muso mara alal fanan ye muso yamar fanan ay kewo soto akukatu molta fono adamadiŋo silata ala ña fo ala ala sila ña wo ye bali musu futu wala ako katu annabiyolu walla silata mool walla silata ala ñala kontel ti bari ala ye feŋo yamar ye dim ye ye futu bari ala naata fana yamar ye dimbayal soto ako kaato ni wonte man duŋo wala futuwo manke musoo tema diŋol ye soto ako minata la fo waat doo be je adamadiŋol be banna ñi duniya faŋo kono ako la na lonna duuba lonna doo be je

ilo doya ini jamano kata ini jamano kata foy i banta feren duniya kono mol me moy fana man ko mol se kata ka fo ñin inene ako allah man lafa ana o o di bi mooy li ñuy njëkk a wax ci wàllu fase asbaabu am mooy sabab yi nga xam ne globalement dañ ci fukk ak juróom bu ñëwee ci fase ci côté góor danañ wax fukk ak juróomi mbir yu góor di def bàyyi jabaram suñ ñëwee ci côté jigéen dinañ wax fukk ak juróom yu di def borom këram bàyyi ko. waaw akoñi futo e mo mumma nin dunta kono ako nin dunta fotata dinkiramu yalla ko futu baŋo ako sayi mbe fanna tan anin luulul fo la kewo la karo la kewo exemple fanna tan nin luulu ate ka muso bula mun na ani fana mbe muso fana na karo la fanna tan anin luulu musikeno sababoti ke wo muso fana kema yabula ako bari folo be folo la sababu ya lon global lon mu ya lon ko ateli ye ke woni eh, ke woni muso la mu ya lon ko futo ka bangol su ñëwee ci sabab yu globalement yu njëkk yi mooy adamu tasawur wuduux ahdafu ziwaaj mooy ku góor ku jigéen dañuy teg projet mariage ku góor ki bëgg a takk ku jigéen ki ku jigéen ki nangu ku góor ki takk ko waaye ñoom ñaar seen gis-gis ci sëy bi yëpp amuñ ci jubluwaay te sëy dafa war a am jubluwaay benn waay dafa bind benn téere mu tuddee ko azziwaajul fasil mooy mariage bu échec ci biir téere ba mu def lu tax mariage bi échec mu ne rajulun ixtaara jasadan wal mar'atu ixtaarat bankan mu ne li tax mariage bi échec mooy ku góor ki yaram la tànn yaram su ma nekkul woon tey ci jàkk wala nekkuma ci ay kilifa damay wax tey nit ñi ci takk jabar da gis koo xam ne lu mu tax mu takk mooy ginnaaw ginnaaw ndaw si ki njoolaay bi kii bët yi kii dënn bi kii teen bi kii kii kii te yonent bi alayhi salaatu bi mu doon joxe valeur yi nga xam ne mooy tax góor takk jabar lan la wax aleykum bi zaati na ngeen jël borom diine mu ne saa yu ngeen jëlulee diine jël ngeen seen loxo dóor ko ci ëkk kon ñàkk am jubluwaay ci ñaar ñiy sëy lan moo tax ñuy sëy day tax fase bi daal gaaw ndax ku góor ki bu fekkee jëmm kott la takk jëmm ku jigéen ki moom ab jaaro jaaro rekk lañ ko jox mu daal di miir daal di nangu mariage bi mooy jigéen joo xam ne bàgg la takk bàgg la tànn ñoom ñaar kii tànn xort bi kii tànn jaaro ñoom ñaar sëy bi du dem ay mum fo ñiŋ futoo la baŋo a fanna généralo mu ye a lote mum fo no a ko i ka jubee le a jama jama kewo naa be musoo futu la a ka musoo futu a la jaatoo kama jaato wol wol wol ka ɗum futuwo niŋ musoo loŋ wo ye ka ñiŋ jaaroo mun diya la ate ko wol le tombo a ko wala ne kendin doo bu je kabira be kitaaboo safee la ko mu naa nante la ñiŋ futool bee lanfuta i be tiñaata jama jama ko bii naa ma turdu bi suro dolɓe je ni ɓe la sofutola dolko mu sofutu a koomo ka koomoɓe ɓe yaari dolko mu sofutu kaɓe aɓe jaññaari dolko mu sofutu muriye samba jeeɗo ko asan aɓe aɓe koyrenmi dolko mu sofutu ko a fisoɓe ɓe yaarina aɓe ñaana comme akatin ko a o molmo objectif o sono futu wala karol molko ñi ñaaɗam mana juuɓe molko kool juuɓe molma muta ala baka kool akubari muso fana na bi tarbitu ita ate kewo ba ce futu ate futu dali juma ye jaro da mana diyala wo jaro ako ko bi tele nyon futu mun na wo futu wol udula wol din kana betiya wala na jama jama hi e she ko te kewo ni muso temo ate nya jama jama ñaaral bi mooy suul ixtiyaar indal mara mooy bu fekkee côté jigéen bi nga ñëw ku jigéen ki day tànn tànn bu bon ku góor ki tànn tànn bu bon su góor amee dignité am diine dem bëgg am soxna soo xam ne amul diine walla ku jigéen am diine bëgg am góor gu amul diine sëy boobu du dem te islam def ñu tànnloo woon bu ngeen di ut soxna na ngeen tànn bu ngeen di am jëkkër na ngeen tànn góor ñuy xool ci moom ñaar jigéen ñuy xool ñeent benn bi tax ñu koy jël yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa waxoon na iza ra'aytum man tardawna diinuhu wa xuluqu fa zawiju la illa tafaaluhu takun fitnatun fi l wa fasadun arid wa fi riwaya wa fasadun kabir sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam ne woon na su ngeen gisee góor goo xam ne jikkoom baax na am na diine mu ne may ko jabar su ngeen ko defulee yàqute mooy am ci kaw suuf beneen riwaaya bi mu ne yàqute bu rëy rëy rëy moom mooy am kon jullit su fekkee dafa am projet mariage fa war a tànn jaar fu ko diine tànn loo ku jigéen lan moo tax ñu koy tànn ñeent tunkihul mar'a li arba li maaliha wa li wali nasabiha wali diiniha fazfar bi zaati diin taribat yadak yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ne nañ takk jigéen ngir ñeent alal bu ma am taar ak askan sooy alal fi nga koy bàyyi sooy xool taar fi nga koy bàyyi booy xool askan fi nga koy bàyyi moo tax yonent mu ne fas far bi zaati diin jëlal borom diine imaam ahmad rahimahullah bi mu waree takk soxna dafa yónni benn tàntaam ku jigéen mu ne demal nga tànnal ma soxna tànta bi dem benn kër fekk fa ñaari xale yu jigéen mu tànn kenn ki mu ñëwaat mu ne ahmad fekk naa fa ñaari xale yu jigéen tànnal naa la kenn ki mu ne déet danga may wax ñoom ñaar nu ñu mel ba pare kay balaa ngay tànn mu ne kenn ki dafa rafet ki ma tànn ki fa njool dafa mel nangam dafa mel nangam dafa mel nangam ci wàllu àdduna mu ne waaye keneen ki daal dafa xaw a ñaaw de waaye ak am diine um, Ahmad ne ko tànn naa ko mu ne ko lu tax mu ne ko place bi ñuy bànneexoo ci jigéen jigéen ñépp a ko am ku njool am na ko ku gàtt am na ko ku xees am na ko ku ñuul am na ko jigéen bi wér am na ko jigéen bi dof am na ko mu ne ko waaye xel ak diine jigéen ñëpp amuñu ko moo tax daan naa ki am diine ki yo anatumu fo sayi min futuwola karola ako katu i ka je ke wonnaɓe muso tombon noon a jama jamo a ɓuka da jikko tombon muso fana neyatara ɓe kewo tombon noon a ɓuka kewo muye jikko soto a ɓuko tombon ako kiilo ka tara kiila alayhi salatu wasalam ko kewola karola neyatara ku fula wol tinna e eh, suutiyol isi dimma di musol cika ya di kewola ako kiila alayhi salatu wasalam ko naal ye moo je mu yalon ko ay diino soto ay da jikka beto soto ke wala karo ako alal dimma diyala ni wonten tiñaaro sikke ñun banko kan ako fitno sikke bari tiñaar baabe soto banko kan ako bara mum fo ñikke wala karola musola karola akoy ko mo ko muso mara kunani kama dol ko muso mara ala ñiña kama ako ko muso eh, mara ala nafulo kama dol ko muso fana futu ala kabilo kama dol ko muso futu ala dino la karol akubari kila e mol yamar ako ko al mo futu mu yalon ko ay dino soto ako ka to miyatari ni nyalon bala malmalo nam hi aka tale niyatra bitum niyatra nafulo lo nafulo ko dum duniya ko bar niyatra kabilo lo kabilo ko banne bari dino ko ban parce que dino ko mo adama ni danda anata imam ahmad lo ko fo ako watu mu ate parata ko muso futu aya binki maki akay ko ta ye muso nyimi

akay ko amunani yo to mon akay ko musol aramo diŋo kewo ka ni diya soto dani musol la karol ako itel bel ka ñantala akay ko abe musu ñi ñaaron to musu mulu njaw musu jañaari aya musu ñamato ko kumu ya mo jele mo ka niyo mo ka ni soto da musol la karol ako itel bel ya soto barako hakkilo musol be man kaña wala kono oɗo comme ay hakkilo soto ay diino soto ngowol tombon kato kiila ko nalman diinatiyo tombon ako ala yaal bulo busa banko ñetteel mooy doofu diin lada ahadihima aw kilahuma ñetteel bi mooy li tax fase bari lu muy am mooy ñoom ñaar ñàkk diine bu ñuy ñàkk diine wala kenn ci ñoom ñàkk diine bu muy ñàkk diine ndax ñaari jullit suñuy ànd góor ak jigéen ñoom ñaar amuñu diine seen sëy du dem ndax li leen boole ñoom ñaar diine la bu ñuy takk sëy bi lan fan lañ ko takke woon kon diine moo leen boole bañ nañ ko sax ba bu ñuy xutba yaa ayyuhan naas la ñuy wax ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida ñoom ñaar ci baatu rogal yàlla lan leen di woowee gis nga saar boobu tudd euh, waxtaan bi ñuy def dangay jàng ci alxuraan 114 saar yi ñu ne am na saar bu tudd suratu talaq ci fase la yàlla wax nañ ragal yàlla ñetti yoon suratu talaq ñetti yoon yàlla di wax nañ ragal yàlla ci sëy bi kon nag ñoom ñaar ñàkk diine kenn ci ñoom ñàkk diine góor ñàkk diine wala jigéen ñàkk diine day tax sëy bi day tas day tas su ko góor ki amee diine ku jigéen ki amul diine yàgg-yàgg fu ñuy mujje mooy dañuy tas su ko góor ki amee diine eh, ku jigéen ku jigéen ki amee diine góor ki amul diine yàgg-yàgg daf koy bàyyi dama am benn jigéen bu nekk dakaar maa ñëw benn bis di ko jàngal mu ne ma gée ñaata rakk la ma ni ko gée mu ne waa ma ne ko ñeenti rakk mu ne ah man de damaa jaaxle démb ma ne ko la moo la jaaxal mu ne sama borom kër ñuy julli gée mu julli ñaar sëlmal mu dem ma yaakaar ne defa fàtte wala mu ne man ma eggali ma ñëw laaj ko ma ne ko yow yow ñaar nga def di mu ne ma ñaar la ma ne ko gee lañ doon julli mu ne ma waaw ñaar la mu ne ma beneen bi xam nga lum def dañuy julli ji day dem julli ji fajar mu tardé bu mu ñëwee ba buntu jàkka bi mu dégg ñu ne assalaamu asalaamualeykum mu daal di tourné dem kër ga mu ñëw lan la waroon def julli mu tëdd ndaw si ne ko ah mu ne ko julli nañ ba pare julli nañ ba pare ko <laughs> julli mu ne ah jooy nañ ba pare kon ñàkk diine baaxul day tas sëy su ko góor amul diine ku jigéen amul diine wala ñoom ñaar ñëpp amuñu diine musiba mooy am a ko sahi sababu fana muyanne futo ka ban diina sotobaliya diina sotobaliya i fulo fanna bele ke wala karola musola ou bien kewoye diino soto muso man diino soto ako isime ñaw ñam futu kabandi ou bien muso faŋ diino soto kewo man diino soto ako futo kabandi anata kendin dollo kol fo nu muso mbe a be dakar ako kema lunkilibu jo wonata ka ñini ka kay ko safu salo lo jel lon ate kay ko lo nani lon akay ko hanin jahaltani akay ko muno ako ate na kema be salo la kema yo lo fulaka kabrate ate ɗum yo allah salo kontini kabra a e bande akay ko a ah, ite a foye trompe dal wala akay hani man trompe aka ɗum ɓenum safu salol la a akay ko a kay ko ha lofulal akay ko je lundoɓe je o wilta suba kata misiro to pour salola a natana futa bi misiro bundal a tareta ayamo almama ɓe salamuro kela ako ate murtanal ako a kemaye ko ñaali lon akay ko ako woye wonato woman sali misiro to woman sali soko to woyera laron kan santo akay ko mona ko gatari salta fo ye bande yalon ko dina soto bale wala ñi wala ñinno kon na ako fof futo banne ñeenteel mooy suul xuluq bayna zawjayni jikko ju ñaaw ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ñaaw jikko sëy bi du dem kenn ci ñoom dafa ñaaw jikko sëy bi du dem ku jigéen ki moo ñaaw jikko sëy bi du dem kon sëy bokk na ci li tax mu sax mooy jikko ju rafet moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu muy wax ci mbirum tànn dana iza raaytum man tardawna diinuhu wa xuluqu xayrukum xayrukum li ahli wa ana wa xayrukum li nisaikum ah? ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay mbokkam mu ne man yonente alayhi salaatu wasalaam maa gën ci samay jigéen kon su ko defee nit ñi dañu xam ne jikko ju bon baaxul yàlla tabaraka wa taala yi muy tagg yonente bi alayhi salaatu waxu ko ne yow yaay Muhammad wax ko Màkka nga juddoo wax ko Abdalaay mooy sa pap wax ko Aminata mooy sa yaay waxu ko Qurayshi nga waxu ko déedéet lan la ko wax wa innaka la ala xuluqin azim loolu la sunu borom subhanahu wa taala wax sayduna Muhammad bi mu koy wax da ko ne walaw kunta fazdan galiza alqalb lan faddu min hawlik fa bima rahmatin min allahi linta lahum gis nga kon sunu borom subhanahu wa taala li mu wax yonent bi seedeel ko ko mooy jikko ju rafet moo tax jullit góor jigéen bu seen jikko yàqoo seen sëy du dem ako sabab do fana ɓeƴe mun ko futoɓan wonmo daji ka kurum e fulol ɓe nomoño fulol ɓe itel ɓe daji koye kurya mbiyen muso la daji koye kurya ou bien kewo la daji koye kurya jama jama ako katu miyatata ɗaati ko kuriya yo sototumo mum jitanola atemela wala na kiila kam rabu mol yamarla aɓe alfal yamarla ako ko niyatara mufutatal mo muyano ko diino babulu daati ka kendo babulu alaldi madiyata kono daati ko kuru ako molu futo banne a walanna kiila salah sallam ka ɓe allah mbawi jayil alquran o kono ama jayi ka fayi ko ite wuluta makka ibamalam aminati ite munti masalla kay ko iteɗa jikkol fi siyata mol wiyeɗa jikkoti ako ala ya ya jam wolla ako waɗo men ala fana ɓe diyamla koya kay ko ni keta ɗum akoy ko mansatallala memo kam wala tande ñil be ite kaɗum ni keta ɗum mo sanar rewta i keta mo da jikka kurunta ñi sahibol mul yemuru hani kelintete muru okol witalama kono ako sababu do bi yemo yala ko futugo banne nomoño fulol temo walla da jikka kurunti i fulol ɓe ya soto ou bien keñital kono yeɗa jikka kurun soto juróomeel mooy adamu nazaratu sharia mooy di ñàkk xool sharia ñaar ñuy sëy te faalewuñu sharia ku nekk lu neex ngay def ku nekk la neexee nga jalgati ku góor gi bu ko neexee mu wax lu ko neex bu ko neexee mu def lu ko neex ku jigéen ki kazalik te ñoom ñaar sharia moo leen tënk seen dund sharia la kenn ki nag ci ñoom bi nga gisee sa morom sharia moo leen boole suñ waree tàqalikoo tamit charia moo leen di sàqale comme bu fekkente ne mbirum ñaari benn mbir moo boole ñaari nit te mbir moomu boole ñaari nit ñi ñoom ñaar faale wuñu mbir moomu seen diggante du dem kon jullit bu góor bu jigéen charia la ñu war a tënk seen diggante kenn ku nekk ci ñoom soo xalaatee ni lii may def dañ ma ko tere wala lii ma bëgg a def dañ ma ko sant rek day yomb ako lulu njaw mun ko fanaka ñi futuwoti ñaa wolon itelnomo ñowfulol ɓe i damantara sharia la kuwola wo sharia wol munati masatala la yamaro ani kila salah sallam le yamaro futowola karo itel me dakewo ako kaatu ni taata itel ɓe konten tel daati je ko ala ye mu yamar kiila ye mol yamar ala ye mu mol fatanle mun na kiila ye mum fatanle mun na ako ke itel futuwo e meela kaatu kewo mu ndiyata kol ke muso fana mu ndiyata kol ke bari ni tel tawol i taata i saye futoɓe sitile kel tematomo ya ke misirol kono e kabri ɓe futo sitile kema yetel kili limani yala karola kafa alisila ña alisila manso mu yalon ko ateɗa man to alkañon dani atel tola alkañon so ate tola alisila man satalmaya a ñaami lora alkan sama albelolo ala ñala ayal konto bo bar ni tel me hakkilo ke to wo ala to ime hakkilo to kiilala yamaro to akko jama jama futo kati ñaani bari ni kewo yalon ko a mi islamo ye yamar ñina kela l'islamo ye yamar ñina fo la ayen fatandi ñina la muso fana ye miro wo ñama islamo ye yamar ñina la ayen fatandi ñina la ako ko isitano bari ni da i fulol be itel damantara ala la yamaro itel damantara kila la yamaro i damantara kila la fatandol ala la fatandol ajamaje makko soti ñaali jurom bennel moy al ayn wa sihr wa muskilat an nafsiya wa athariha sey dina tas fekk dara waralu ko lu dul bët sey dina tas dara waralu ko lu dul njabar sëy dina tas dara waroo ko lu dul ñoom ñaar ñii dafa am kenn ku am problème mu psychologie problème mu xel problème mu mental kon ndeke loolu yéen di doon wax al ayn xaq ba dëgg la di nga am jëkkër wala nga am jabar rek kenn ci dëkk bi ne la kan ay bëtam rek sa sëy tas wala ñu kenn ci ñoom dem njabar la kenn ci dëkk bi wala ci famille bi iñaane ndaw si jëkkër ji wala ñu iñaane jëkkër ji jabar ji ñu dem liggéey seen diggante ñoom ñaar sëy bi daal di tas walla ñoom ñaar kenn ci ñoom am problème mu xel am problème mu mental ah, loolu mbir yooyu day tas sëy ñu xam ko ako saye woro jam olmo ñi ku saboti adama ɗi ña ako kaatu ñasototale ɗon ɓe jeeyi ila ñaar ila jiboyeron amon defiya ni ñalote koku mum ka kati ñaale ɗo fana ɓe jeeyi ako keeno mo hakkilo la karo la dow bi je asi keno kortelo ko la ou bien dow ko ako jama jama isaje sa teto moye muso mara dol bi yetelo muso maro akete kewoti sa dol nyaat nyaalloti ila muso la karo la ila futu woyti ñal o xatere a mantara betiyaade ako sotole wala na kiila ko ñaa sototal to ñaal mool se kar ala daani asa mool tankani ñaal o bi je a na bisimmo ma ñana funtilala ko ra kono ama ala daani ama duwarono kara kaatuño duwaron karan ko ɓe fundala comme kiilaya koye ñaw ko ɓe fundala masatallah fan wolke tek kantam bari ni man funde dolɓe jeeye eɓe ñaamin eɓe koriyaɗo mbi ñaloɓe ko ko mum kan tiñaade dolɓe jee fana ko mun kaati ña ha sidiya moyaji ite muso soɗo ay wo ha sidiya woyate ɗum ay taaboro kan kete tiña kete dow kuforkal temotiña ako dolɓe jee hakkilo ou bien si tano on se yal jalbe dame euh, ta jalantiol feeje ou bien cortéral feeje kal ke ke kal doku fo muso hakkilo tarrete kan ou bien ke wofana hakkilo tarla muskan a musma kan temoy juróom ñaareel mooy kasaratu takalif al mahri wa ziwaj mooy teg charge ku góor gi ci can ak dépasse bu mu war a dépassé wu mariage bi yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ne sëy yi bi ci gën a barkeel mooy bi can bi gën a néew mais xam ngeen ne tey ci sunu dëkk yi nit dina bëgg takk jabar ñu lay laaj di la laaj di la laaj di la laaj ba yenn saa yi nga ne waaw baax na léegi man maa bëggoon bëggatuma wala ñu laaj la laaj la laaj la ba suuru mariage ba laaj yi laaj yi laaj yi day bëri ba problème yëpp foofu lay tàmbalee ba waa ji bu ndaw su ñëwee da ko naan yow kenn mayu la dama laa jënd que temps laa ci def moo tax ndaw si bu ñëwee waa ji di ko respecté parce que li mu joxe dafa bëri yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu jàngal ci sëy mooy ñu yombal can yi yombal mariage yi su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñaar ñoo nar a dundi ñu dund dund bu yomb waaye bu fekkee ne mbir mi diisal nañ ko jafeel nañ ko laaj nañ waa ji ba laaj ko ay noppam problème lay jur bés bu ndaw si ñëwee fii may wax ak yéen am naa benn waaye boo xam ne sama école lay jàngale dañ koy laaj waa ji di joxe ñu koy laaj di joxe ba dernière minute ñu ne ko nag année bii mu jekk muy jàngale pour am nag ban nag bi yomb mu bëgg a dem ñu ne ko bul ñëwagum de des na mat la fi mu nekk dafa ñëwaat pour ñu lebal ko xaalisu mat la mu leb foofu ci dëkk ba su mat la pour dem man lool laa fa bàyyi xaw ma nag ndax mat la ba yemb na wala yemut encore ati xam nga kooku fu mu toog sama goro yi ñoo bon sama fu mu toog rek loolu lay wax léegi loolu lu muy jur mooy ëllëg ak si biir day ñëw rek ndaw si ne xaax rek mu ne ko sa yow rek problème day am kon mbir mi dafa war a yomb chaque jour can bu bëree problème mariage yi bëri problème indi lii indi indi indi indi waaw waa ji bu joxee lu mu war a dund moo ndaw si après lu ñuy dundee su fekkee li mu denc yëpp joxe na ko après ñoom ñaar lu ñuy dundee problème mooy am moo tax loolu tamit dafa bokk ci li tas sëy ako worowla njaw mu ko futoo fanam bang walla mu ko kool kolyandi kewɓe mu soñil na daamin ye ko dunolaa kan duno mu ye a lonka a jama jama ako i ka jele moye naana binañanta muso futula ya ñininka ya ñininka wo ñininkar ba na tambita ata a aka ñininkaro ko waddo je na fasita batata ka foy ko intel laftono sa he ngam ñam futale sa watere ñininkaro wol siyata adu kila alayhi salatu wasalam ko muso mu yalon ko atele futu na fulo ya ñininka mun wol fe doyata ako wolla futuwo barko warta sa wuro niyo ke wo ñama a jama jama yebo ñininka comme ata yafu ñamin dakar yo a ya ñininkaale fa a a naafulon aɓe kele ñaami fo waatu mune femmantu fona manke katambi kata eh, a bitamol feejo a kaye ko niiso ako ay aye dow ko ke ay kool beke a ye niiso sawon soto a jalaɓi naataali kaye a hani imon futa fala imon futa falan matlañi wamanna aye o fija a wol fe a wol ñinol wamanna a ate malimina mune a kam ako a dow a siida dawoɗa muna ka fo baɗi nañi bitamol e koriyata e nañi bitamol e koriyata e sa wo siifa ni muso naata hana tan ay ko ndinkere ika fay ko ite koy ko ñe sanne ganna ko jamankete lokol aka futo banne kaatu aka na kuuddundim adama a ko mooli a jabatandi le ako on ñatara bi tum alta ñanta balula munna ye ñinin kala lunkini yaaɓe ɗi ni musanaɗa ɓe balula munana wol fana ako mu yala ka futoti ñaat juróom ñetteel mooy intisaaru talaq bayna al aqarib wal taawidu ahaduhuma ahadu zawjayni ala talaaq wa ragbati fiihi wa adamul mubaalaat bi nataijihi bokk na ci li tax sëy du mën a sax gaaw a tas mooy ku jigéen ki wala ku góor ki ñoom ñaar seen famille papaam du yor jabar wala yaayam kenn du ko yor ku góor ki papaam day takk di fase ku jigéen ki ku ko yaayam ku ko takk fase ko yaayam am na juróom-ñaar fukki doom juróom-ñaar fukki doom yëpp kenn bokk ci samaroom sant papaam am na téeméeri doom téeméeri doom yëpp bokk ñu ndey ak baay maanaam ku juddoo ci famille bu mel noonu tas dalay yomb ndax li nga tàmm dund loolu ngay yóbbu fee su fekkee ku góor ki papaam day takk di fase ku mu takk fase la su fekkee ku jigéen ki yaayam dañ koy takk di ko fase ku ko takk fase ko ndax lan ñoo ñu lay def royukaay comme man sama papa du yor jabar sama yaay kenn du ko yore ah man du ma yor kenn du ma yor kon ñaari famille yii gis nga moo tax démb bu fekkee da nga bëgg a takk soxna da ngay gis sa papa ne la xaaral ma demal la ci kër jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy kër ñu baax ñi nga dégg ñu ne ndaw si def na fi juróom ñaar fukki ak ci kër gi mësul teg tànkam ci buntu kër gi kooku boo takkee doomam doomam du ñeme dem fay parce que doomam saa yu ñëwee mu ne ko loo fi def mu ne yaay man mu ne ko yow ndax man yow bi nga juddoo fii ba léegi mos nga faa gis mu ne waaye koo xam ne juróom-ñaari doomam yëpp Jóob Faal Caam Saar Sow Juuf du dem say ay sey jaw fo ako mu ko futotiña wal mu ñinte ke wala karola bien mu sola karola sa ila famille folol muso la famiyo kewo fana na famiyo a kɔni y'a ta bitu muso dun ate bɛ linkira dɔ famiyo mu y'a lɔn ate baa ma ke tan ani nuuro b'a bolo de saa ni y'a futu ate a b'u ka mɛ futu ni y'a futu futu a ka futu ba mɛ ke dɔ y'a futu a ye futu futu a ye futu ba mɔ y'a la wali ɲaama a di ma k'a ɲa lo a wulula la a ka fɔ tele ɲin b'u wulula bɛ silo mun na a ko n'i taara o musu si fa di ma futu san i saa nɔ ko ale a a ye kɔrɔlen ni kewo la karon kewo a yalon ate faama ate ɗum kete mumo kewoti mu yala aka muso futu aya bula na ye muso futu aka bula na ye muso futu aka bula kewo fana dindiw fana ka fo a n faama be mun na ŋa mbe mu silebe tot ate fana ate kara muso mara la wato war na ye soto aka bula le na na soto aka bula le ite muso je saate tara je din woro wula ye tara bulu wo din woro be i be kontomanke kilin ɓe ɗenkilon mbije konton mum falti ɗenkilon mbije konton mum sanelti ɗenkilon mbije mu ñin sowleti ako okake probléme ol tout bari kewola karo fana o ñaama naadi comme ate aye din tanni al ananiya min al masuliya moy bordi contante waa ji takk jabar indi ñu naan jabar ji nangamu xeet la bokk nangam la sant géwél la géer la tëgg la nangam nangam ndaw soosu mënut a sëy ci kër googu sëy bi du continuer beneen bi mooy indi jabar ba pare di daw responsabilité wala nga sëy si ci kër ba pare di daw responsabilité ñaar yooyu dafay tax sëy bi du continuer rawatina nag bi ci gën a garaaw mooy al ananiya mooy kër gi ku mel nangam ku sant sàngam ku jóge dëkku sangam moo fi war a sëy waaye kii nga ñu indil xamuñu fu mu juddoo xamuñu kuy ndeyam xam amoon naa benn waay bu war a takk jabar seen waa kër ne dee waa ji takk ndaw si lu tax ñu ne yaayam mbuur la nekk rek ñu mbuur la nekk waaw lan la yaayam di def mbuur ñu ne ah mbuur la yaayam daal mbuur la nekk ñu ne lool rek ñu ne waaw mbuur la nekk léegi wax leen ñu lan lay def mbuur ñu ne suñu yoon nekku ci yaayam mbuur la nekk te amul jëkkër mbuur la nekk amul jëkkër gis nga sëy boobu mujj na am 18 ans mais après mu tas am na de ba mu am 18 ans mais après tas na parce que chaque jour olof yi dañuy wax ne lépp loo xam ne dafa nuyoo ca ngoro bi amee day feeñ beneen bi mooy daw responsabilité jigéen boo ko gàddoo indi ko ci kër da nga yenu responsabilité bi inshallah yo kon kononta jam wol fola après ngana batu ni salta ni salta inshallah ngana continue comme abini mu fola futo fana mu ka ban wala ni hasabiyel ka fa ni mbek fami kare ni mbek kalu kare